émission nan ñu baal jégal ñu xam ne waxtu wi moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu xoj mm. alors euh, Abdoulaye ñu tàmbali ko ak sunu thématique sujet bu njëkk ñu bëgg a waxtaanee

jamono ji ñu nekk ñu ngi alerté évidemment euh, ANACIM wax na météo wax na ñi nga xam ne ay seen borom xam-xam màcc na jëm ci wàllu euh, euh, météo wax nañu également que temps bi favorable favorableul benn yoon pour dem tukki donc loolu itam nañu ko bàyyi xel bu baax a baax temps bu favorableul nag mooy ay la yowén boo duggee ci géej gi jël gaal mooy jàppal ne Euh, à 99%, quatre-vingt-dix-neuf pour cent jël fukki ak mën nga mucc donc euh, mën ngaa faatu euh, lolé itam faw ñu bay ci xel alors Ablaye ban jangat rek ci stratégie bu état jëlati wax né dañu bëgg évidemment stopper phénomène bi ni mel té neutraliser départ c'est-à-dire ñom lolou luñu gis xex bi dafa wara teunku ci départ lolou est-ce que dina yomb. am Seydou Mohamed. defe naa ni euh, mbëkk mi du gulet ñu siy waxtaan. Mm-hmm, dëgg la. Euh, du gulet itam euh, sénégalais di jooy ay ay seen ay doom yu ñàkk. la. Mm. du gulet itam nga dugg ab bërëb. si mm. ndakaaru mm, lu si mel ni Tëngéej lu si mel ni Bargny lu si mel ni Caaroy ak feneen si ay tund si Sénégal Fass Boye ak feneen ak feneen. te gisuloo ay ay bâche ay nit yuy jooyoo ndax itam dañoo ñàkk seen ay doom. Mm-hmm. kon boog li njëkk jaaxal mooy. Euh, lim gi nga xam ne wax nañ ko si wàllu estimation. pratiquement vingt sept mille à trente mille. Euh, ay doomu aadama yoo xam ne Sénégal la ñu bàyyi ko donte la ñëpp duñu ay Sénégalais mais majorité bi quatre vingt dix pour cent yi. daal Sénégalais la ñu. Mm. vingt sept mille à trente mille jóge nañu si waaxu Sénégal yi yegg fi nga xam ne moo di côte occidentale fra euh, européenne bi. moo xam mm. Italie la c'est Sardaigne moo xam. Lampedusa la sa Italie moo xam El Hierro la. Mm-hmm. fi nga xam ne moo moo nekk sa Espagne donc nous estimons en moyenne 3000 à 6000 nit yo xamné dañu été fi chaque semaine depuis pratiquement chaque semaine wa ayu bes bu né si nous mhm. chaque fois nga 232 personnes 222 personnes 110 personnes etc yexé nañu que nous xoy xol en moyenne je dis bien en moyenne si li nga xamné mang en moyenne il y a au moins 15 à 20 femmes il y a en moyenne 10 ak quinze mineurs. oh si la nga xam ni moom moo fay yegg. bu ñu demee nag ba gaal jigéen bu wan lor. Hmm. Euh, euh, wasin ci biir gaal defe naa ni euh, te doom ji yegg si te yegg siwul ak bakkan. Hmm. imaginal loolu noonu ñu war ko jël fa mu fa mu fa mu bàyyee boppam si kanamu nit yi ak gaal ga nu mu feesee. ñu war a jël gune googu sànni ko si géej gi moom ndey ja hmm. naka traumatisme boobu naka lañ ko war a mën a dundee. kooku noonu tey jii bu ko andiwaatoon fii Sénégal bant naka lay dundee naka ban prise en charge psychologique lay am. Mhm. est ce que tey jii il y' a une prise en charge psychologique si ñi nga xamni jaar nañu jaar gu metti wa ila dund dund gu metti si géej gi te yegguñu ñu wat lañ ndax dañu leen secourir en pleine mer par la marine nationale ou véritablement. ma euh, garde côte euh, yi nga xamni ñoo nek euh, ci Maroc au niveau Dakhla wala fenen ak fenen mhm. def naa fay daal di doy war mais lima setlu modi suma xolé communiquer conseil des ministres yu Mohamed. Mhm pour nous aborder si l'immigration immigration clandestine dans doo ko gis ba dal lañuy doga danaka conseil des ministres aborder li la lancinante question mm, de l'immigration clandestine bi nga xam un véritable drame mm-hmm. te dans dëkk yu yu démocratie di doomi di faatu anam ñun ñi ngi jàpp si suñu référé woo si ONG Fronteras. Ah. jàpp nañ lim gi janvier ak ay ay kii weer yi si ginnaaw. Ah. daanaka lu mat juróom-benn junni bakkan yoo xam ne amaana estimé nañ ko si wàllu ñi nga xam ne faatu nañ maanaam 7000. Ah. si la nga xam ne faatu na ndax am euh, chiffre yooyu ONG boobu rek moo ko liggéey est-ce que am na ñeneen ñoo xam ne liggéey nañ si ñàkku ci loo xam ne xëy lim gi mën naa gën a néew wa lim bi mën naa gën a yokk. donc pour wane nii rek. que ni geej gi la won ci ci doomu Sénégal def naa ni jéggi na dayoo. mais bu ñu demee depuis janvier nga xool au delà si li nga xam ne moo xew si géej gi am na beneen forme de migration bi nga xam ne sax moo gën a yenu maanaa te itamit dese na wóor ba tey moo wóorul ba tey à cent pour cent mm. parce que amul benn émigration bo xamné ne bu jaarut yoon manam dans la légalité qui ne s'inscrit pas dans la légalité mhm. mu nek ci li nga xamné ne wourna moy bi nga xamné dañuy jël avion ga mom ba yegg dëkk bi nga xam Nicaragua après jël euh, yoonu souf gi mais buñ né ne ndax am état tey di may euh li moo solution mhm. mais ban solution grande offensive moo lan contre l'immigration clandestine mhm. oui il n'est jamais trop tard pour euh, pour essayer de de bien faire mais je dis encore une fois grande offensive boobu war na jiitu depuis ay wèr depuis ay grande offensive bob warun na jiitu. on a un programme amna fi ay programme y a des centaines de milliards ya ko nga mais il faut quand même que l'on puisse faire l'audit par rapport à li nga xam utilisation khalis bob ay centaines de milliards fan la jaar fan la dugg bon y a plus de 65 000 emplois créés dans quel secteur l'emploi est lañ créé parce que yomb na nga chiffre mais dans quel secteur de l'activité professionnelle professionnelle économique la plus de 65 000 emplois. Emplois emploi est ce que c'est des emplois pérennes madame loo xam am ay du est ce que ay emploi précaire la précaires ou des emploi temporaire Comment nga moo le temps de chantier le temps ñu tabax euh, BRT bi lañu ñu jël en masse baax na liggéey la xëy na kenn xeebu ko bamba waaye nag dafa am app c'est le temps du chantier mm. le temps du chantier emploi boobu nga créé emploi précaire emploi temporaire la chantier boobu bu jeexee ñooñu dañuy wëlbatu ko doon chômeur mm. kon boog loolu mun munoo ko dugal ci statistique mm. pour ne création d'emploi la parce que la création d'emploi dafay nekk emploi yoo xam ne c'est des emplois pérennes emploi yoo xam ne c'est des emplois stables su boobaa nag la a wax nga mais euh, offensive bi jëm communication bi nga wax mais yow si wàllu un barrage sa digganteeg ndaw yi bu par rapport ak li nga ni prise de position yoo xam ne la jeunesse sénégalaise mais la nga jiital l' partisan. Mm-hmm. am na loo que da ko yàq Mohamed. Mm-hmm. fu ñu waroon événement bu moi, même c'est des événements à caractère parce que ce bi c'est politique mars ce bi amna ci lo xamne forcément dina les politiques. politique juin bi passé amna lo xamne forcément dina si laale politique moor yi am xamuñu kan la parce que enquête amul mais prise de position Bobo, instant bi non. la prise de position devait être une prise de position républicaine manam la ma yor si nombal tank ak lañ ma dénk ak posture bi ma wara am suma ma di wax suma waxé dama wax ak jeunesse boo xam ne damay bedd ñi faraleeg ñee parce que loolu partisan politique la su ma waxee damay wax au nom de toute la jeunesse sénégalaise artu leen alerter leen conscientiser leen pour que véritablement ñu xam ni sama propos sama message si jeunesse bi laa ko laa ko yëmal euh, jëmale su ma ko jëmale si jeunesse bi nag mooy hmm. jeunesse googu nag ñoo war a toppandoo ñu ñëpp ñu def manko pour xool itam lii nag suñu kan naka lañ koy daane mais y a eu beaucoup de retard si prise en charge xeex bi parce que cordon de sécurité bu wóor ko defoon au large du Sénégal si si si waaxu euh, ndarba ba. Mm. def lu bari si walu gal yi Mohamed. Mm. amna na foo du fa jàll du fa mm. cordon bu yaatu si li nga xam mo jëm si waaxu ndar yi jëm kaw nga xamne fofu ala kulli al moy yoon wa def lu bari si walu gal yi dañ ko intercepter. très bien président nak si amna lo xamne wax nako ko si euh, bu muy def ces ajustements aux armées c'est une question pertinente fan mais lu monde na doon question pertinente moom si le ak gouvernement am euh, a dit nañu jël bras le corps depuis bu mu commencé ampleur depuis vous koy commencé di wax ya dem ya dem ya dem te annoncé très bien. mi ngi ko mardi musiba la. Mm-hmm. programme Prodac yii dañ ko war a reprendre tëggaat ko. Mm-hmm. programme activité yu jëm si wàllu agriculture dañ ko war a tëggaat programme yeneen yi nga xam ne dafay yeesal yenn secteurs yi renforcer le niveau de connaissance par rapport a l'employabilité dañ ko war a yeesal yaatal ko ba pare nag def benn euh, euh, communication bu large te loolu waroon na jiitu mais comme il n'est jamais si imam yi si chef de quartier yi si président ASC e yi si bonne volonté nous avons des stars courus à travers le mm. monde Youssou mm. Ndour ngi fi Omar mm. ngi fi ñom ngi fi ah on peut les utiliser ci walu sensibilisation les utiliser ngi ah, ah, le monde sportif est là les internationaux ça ça que ko utiliser ba paré nak am budget la de communication boy TV ngi spot boo xam na 5 fois 10 fois par jour si seen TV émission en pleine émission nga interruption de 5 minutes pour challenger le nga xam ne de communication parce que c'est est des moments d'audience forte dañ ay la xam nañ ko ba très bien alors Bamba ce gis-gis ci euh, mbir mi euh, en tout cas euh, jafe phénomène bu mag bu ñu nekk. di jamono ji. Mm-hmm. mi ngi gën di law def ne day jël ay alors au moment où ñu ngi wax foofu plus de 275 daw. non Ablaye fi ci ci parce que lii nii phénomène bu doy waar la boo xamante ne ku nekk ku yàlla may kàttan da si war a jël ay matuwaay parce que nag on commence à compter les morts. Hmm. parce que nag on commence ñu ngi commencé perdre la jeunesse sénégalaise te fii Abdoulaye wax nii dafa am solo moo tax dafa laaj écoute bu am solo mooy jamono bi ñuy xeex li nga xamante ne mooy Covid 19 bi ñëpp ko songoon. ñëpp ko songoon mooy dama doon gis artistes yi. ñu doon def li nga xamante ne mooy ay ay spot publicitaire ñu doon gis artistes yi ñu def ay li nga xamante ne mooy ay ay ay son yoo xamante ne jëm si wàllum li nga xamante ne mooy nañuy fagaru si wàllum li nga xamante mooy Covid 19 bi ñu gis nguur gi jël si ay matuwaay. benn élan quoi benn élan tey nag ñu gis ne nag ñu gis ne nag kenn ku ne amul kenn ku mën a toog si Sénégal wax ni waxi mbënd mi laalu la mooy wàllum mbëkk bi laalu la mooy xale yi jël gaal gi laalu la parce que man mi di wax yow sama sama sama koñ dama ko fay dégg samay mbokk dama ko fay dégg kenn ku ne su ñun da koy dégg noonu mais boobu ba léegi dañoo gis benn mutisme bu doy waar mooy artistes yi ñu parce que ñoom ñoo doon way la moo tax ñoom génnuñu ay euh, ay album di sensibiliser ndaw ñi pour ñu jëm gën a gëm seen bopp toog mais aussi nguur gi matuwaay bi ñu si war a jël réellement lu tax jëlu ko si day mel ne comme dañuy ñàkk fayda li nga xamante ne sax mooy xale yi jël gaal gi di dee foofu te nag dafa doy waar Abdoulaye dëkk bi ndul gi dafa metti boo gisee foo gisee xale yi jël gaal gi rek ne foofu li nga xam mooy bekkoor am na fa mooy dëkk boobu noonu amutul yaakaar mooy xale yi dañoo gis ne seen avenir bi di ñëw dafa lëndëm këriis amutul ci benn yaakaar si kaw loolu nag le président Macky Sall moom dafa décision wala dafay jël nga les forces de l'ordre pour que ñu jëma a fan lañuy xalé di di jël ji gal gi ñu ba ko mais décision bu mu jël c'est bien beau waye bo téggé dara monsieur le président da fay dara dafa am solo te téggé dara moy xalé ya doon jël gal gi waxé dañu da ngay parce que ay jamono jëlone nga fofu décision bi parce que on se rappelle amna ay mom Macky Sall ci boppam mom moo dem ba jam ñaajo won xalé yi ne dina wax ak ñom si walum xey bi Mohamed bam mu si jugee kenn déggatul Macky Sall mu wax waxi xey ndaw ñi président Macky Sall depuis 2012 mi ngi ci à la tête de cette nation musul génn ay solution si walum ndaw ñi du tok ba quelques mois diko das mu nan en même temps xalé yi dañ tok xalé yi togué foog nga toogloo leen xale yi bu ñu toogee foog nga ut li nga xam ne mooy ay solution solution yooyu nag si moom lañ koy yaakaar ak gouvernement am solution yi mooy lan mooy na jéem a fexe ba dooleel ndaw ñi si kenn ku def fa nga nekk xoolal ñuy jàng tey est-ce qu'il y' a y' a une importance pour vous si li nga xamantene moy mooy xalé yi demal université nga ko fermé mais ah, créé 66 emplois non non non mais bu bu ci emploi. mais am 66 000 emplois. je ne pas si vous génn. Mhm. lan te ma ne booy yi génn sax léegi waxatuma booy yi am na ñoo xamante ñu ngi liggéey dañoo génn parce que liggéey précaire travail précaire moo am si dëkk bi ma ne suñu liggéey liggéey taaba taaba takkale la amul kenn koo xamante ne li ngay liggéey mën nga see fay ndox def si nga jël li nga xam mooy épargne banque xam nga banque ñu fa nekk mooy ñi nga xamante ne peut-être ñoom ñi ngi si business bi mais ñiy liggéey Sénégal amatuñu lu ñu yóbbu si banque ba parce que dëkk bi amul liggéey bu baax dëkk bi amul liggéey moo tax booy di génn booy di génn boo jëloon tey li nga xamante mooy xaas bi ngay dégg ñu koy pasa pasare bu président amul benn importance bu mu accordé booy mais ana bi nga xamante mooy tey booy yi nekkoon si place yi nga xamante ne a taabal jaay ana li nga xamante ne mooy peut être yi nga xamante mooy deer ana yeneen yi nga xamante mooy loolu loolu bu amul solo booy duñ ko fi bàyyi di dem léegi beneen bi aussi mooy am na tey li nga xamante ne mooy secteur bi le président da ko am na ñi nga xamante ne mooy waa UCG est-ce que ñu ngi leen di dooleel est-ce que tey boo demee laaj leen a ay milliards na tey léegi na boo ko ñu ñi toog foog nga tegal dara parce que booy dañoo amul yaakaar li nga xamante mooy ci dëkk bi